di leen ziyaara ci bis bu màgg bi ñu fi daje fii ci Daaru Salaam ngir yàlla ak dundal lenn ci diine diine Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gu baax gi ñu fi fekk di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam di ko jotal nuyoo ak ziyaara mbokkam ya nekk ca xadara malikiya ca Tiwaawan di njabootu Seydil Haaji Malick si yëpp fa tabaarakallaahu fii li nu fi indi dafa bari mën na ni mbokk indi nanu fi mën na ni kóllëre indi nanu fi waaye surtout li ko gën a ëmb mooy diine moo fi indi ñu ñëw fekk si fi sunu mbokk yu baax yi ni nu ko waxee léegi di sëriñ Abdallahi Dia fekk goog doomu ndeyam doomu baayam léppam alxaaji Moustapha Ndiaye ak it ki nga xam ni fu nu tourné gis ko ci seen wet muy couleur seen ànd di sëriñ Bas Mbàkke bi toog yàlla dafa dogal wëllëre doxoon seen diggante ak sëñ Pape Malick te ku wax sëñ Pape xam ni am na lu ko boole woon ak mbokkam yi nekk fii ci biir Touba ndax bés nettali na ma ni dafa ñëw seet si sunu maam ju tedd ji sunu maam Mouhamad Fadil Mbakke yal yàlla yokk leeram nee na bi mu ko seetsee ba guddi jot mu ñëw ci sëriñ bi ni ko ah, dama bëggoon bàyyi nga ñaanal ma ma dellu ca kër ga nee na suma maam fàllu ni ko ah, man day tas nga sama yaakaar mu ni ko ci lan mu ni ko ah, man ma defal ko ni fii mooy sa kër nga naan da ngay dellu ca kër ga mu ni ko bàyyi dama juum waaye fii lan dëkk kon tey su waa kër seexul Cheikhul Khadim xewlee waa kër Seydil Hadji Malick ñëw ànd ak ñanu am ñépp du ni guléet te du dul bees ci nit ñi ndax Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum nettali nunu nee na keroog ba tubaab yi bëggee def naka sadul noonu sunu maam Cheikh Anta nee na keroog yaakaaroon nañ ko ni sëñ Babacar dina toj Sénégal ndax mu ni li fi jotoon a jaar jaar na fi waaye nag bii kenn du ko seetaan fa tabaarakallaahu mu nekk ay relation yoo xam ni ah boobu ba léegi famille yi ñu ngi koy seq mu rafet lool ba lu Tiwaawan xewle suñu gisee gis Touba ci seen wet lu Touba xewle suñu gi gis Tiwaawan ci seen wet gis seen mbokk ñin ko bokkal ñëpp ci wàllu diina ci senegal kon ñu ngi ñaan yàlla lii nga xam ni Serigne Abdallah def na ko ah yal na yàlla def ci ndimbalam yàlla fay ko ndax moom mi jël alalam mag ñam ko bokkal ngir yàlla jëmbal néegu yàlla kooku sunu borom rek moo am fayam yan na ko yàlla fay ci barke ki mu gëm ba def ko di suñu maam sëñ borom Touba. fa tabaarakallaahu ah, ñi ngi sant ñëpp jataay bi moo tëdd nii dafa mënul woon a ñàkk ñu yëkkati fi ay kàddu ngir feeñal suñu wóllëre ak ñi nga xam ni ñoo sos bis bii di alxaaji Abdullah ak alxaaji Moustapha di leen jotal nuyoo ak ziyaara njaboot gi yépp tabaarakallaahu ñi ngi may dey léegi ni sax am na beneen délégation bu xalifa bi mi ngi ci yoon bi di ñëw ah waaye comme ñi ngi fi ñu jëlandi kàddu ci seen tur rekk ba ñoom ñuy yegg si luñ ci mën a dolli ñu dolli ko mais fa tabaarakallaahu ñi ngi sant ñëpp di ziyaar ñëpp di leen jottali nuyoo ak ziyaara waa Tiwaawan yëpp yal na yàlla barkeel lépp lépp luñ fi ñaan yal na ko yàlla nangu sotti ko ci réew mi sotti ko ci àdduna bi ñi ngi gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.